SATV, la chaîne qui rapproche su demee conférence de presse Y'en mais na defaan Y'en a marre na défendre idéologie Y'en a mais dem ba naan nag dossier bi dara nekku si non mais loolu c'est grave dossier naan le dossier est dem ba ay kilifa nee na ma kilifa nee na ñoo ko déggandoo quoi ay ay Bassirou Gueye dafa ne ko nangam Bassirou Gueye dafa ko nangam mais kilifa mën na ko wax loo xam du dëgg pour se rapprocher de lui. mais homme d'état du netter ay waxu nek quoi yaanamaar ci bobu sax jëluñu yenn engagement yi yaanamaar ci boobu ñoom yenn wax sax waxuñ ko yow nga bëgg wax lu ëpp li waxul mais féké que kilifa sax xarit la mais loolu si yéen ñaar la il kilifa ak Simo dañoo fóote dossier bi vidul du dossier bu vidde yaanamaar jotewul ak kilifa ak Simo kilifa ak Simo ils ont fauté ils n'ont qu'à payer mais quand à dem Nak ba taxaw ci yenn position yi loolu du wareefu Sonko quoi Sonko parce que wax leen kii tu yi ngeen Sonko mu fas bu が集中力を取る